nu ngi leen di masawu ci coono jamono metti na wante itam xel mooy muñ te mooy liggéey jamono xol nga bàyyi kook sa borom kooku mooy méthode mag ñi ku ci génn itam rek yàq sa dund yàq sa dee waaw kon yal nu yàlla taxaw nu yàlla defal nu jàmm wéradi yi bare na yàlla am na saafara yal na leen saafara te mu bañ nekk dee soxla yi bare na na yàlla faj ko kilifa yaa ngi fi seen kattan ak gëtul ci résoudre problème yi kon nag ñoom itam yàlla dimbale leen boole leen ak njaboot yi ba ñu mën a résoudre problème yi loolu lu jara la ndax li tax ma wax ko damay dégg ay dég yoo xam ni du noonu du noonu yàlla nag bu dogalee dogal la waaye du noonu waaw bu dogalee nag dogal la waaw ndax wolof ñoo ni ku la ni mbas maa ngi ñëw ne ko ay ca xamuloo bakkanam moo caa des wala sa bakkan moo caa des ba tax na kon nag lu bàyyi ci xel tam sago te bañ fu nekk nu taxaw fa parce que fu nekk boo fa taxawee daa dégg lu nekk te ku dégg lu nekk ñu yett la amul sa werante li ci nag sant yàlla rek la sëñ Babacar si nee na Maodo dafa génn àdduna nee na ñett du ma leen fàtte góor gu ñoo wax ma jama jóg ci taw nee na moo ñëw ba ci man li ma li ma laa digal mooy bala ngaa konte ci nit ñi da nga konte ci sa baay ba noppi te boobu duma ko fàtte mukk nee na commissaire u Tiwaawoon ba ñëw ni ma ni sa baay doon dunde bu ko dunde mukk kon doo dem ne ma xam ni yàlla ko yónni ndax tubaab la ne ñu jóge ci sëriñ ndakaaru booba mi ngi ci ak ndawe alaji ibrahima jóob ne ñëw moom itam wax ma lu mel noonu ni ma karne carne yi góor gi daan jële bon ci boutique yi lakk ko ne ma jël carne yépp lakk te lu fi Maodo dese woon ci bor ma di ko fay tuuti tuuti ba mu jeex takk pour wax la ni ku bëgg lu baax yàlla di la dajaleeg waxkati ñu baax kooku noonu rek la toll waaye bu dee lu ñëw naqati la sa xol yàlla dootu ci xaj waaw te jamono yii nii mu mel jar na jataay bu mel ni bu nu ko mënoon bis bu ne def ko lu ko mënoon bis bu ne def ko tabarkal tabarkal ndax li jamono bi demee rek soppiku yeeg suba ngoon soppiku yi suba ngoon soppiku yi suba ngoon bàyyi ci xel faratal bàyyi ci xel faratal tabarkal tabarkal la